du changement maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam képp koo xamante ne yaa ngi fii teew fii tey yow yaa ngi bokk ci gor yi nekk Sénégal kon ñi toog fii ñëpp ñooy gor yi ak yéen ñi fi ñëw ñëpp damay wax ni l'histoire retient juin 2011 mi ngi ma fekk ma nekk ministre des sur le plan du développement man maa ko tuddee